di la ziyaare di am mbégte bu baax a baax a baax gannaaw bi ñu ñëwee euh, fekk la fii nga xamante ne ci biir kër gi euh, si sa secteur euh, lan nga ñu mën indil loo xamante ne tamit sa mbokk soppe yi àddina wërngal képp nan nga gisee tey message bi nga xamante ne xalifa bi jàllale na ko en tant que jeune surtout nag yéen ñi nga xamante dañ leen di woote ci lu mel ni làmb ji ak yooyu lan nga ñeen di indil tey loo xamante ne ci message ginnaaw ñu sant yàlla julli yoon saa salaam di ñaan yàlla jàmm yàgg ci réew bi avant tout te jàmm si la lii xaj si la leen xaj ñun ñu ne kii fi diine yëpp yàlla yàggal leen fi ñu ngi si ñaari waajur jër àdduna ak waajur jër àdduna yëpp ak ñëwaat ak maam borom Touba boobu Laaji Malick maam Limaamu Laay suñu yaasaan njëseen ñu gën a àdduna ñëpp yàlla na yaxaaj na ñaan si réew mi jàmm ñun li na am appel bi na am ginnaaw yàlla ñun mun na am quoi bu ñoom lu gën a rëy waaw parce que nit diine dafa am solo nit diine waaw soo amee diine da nga am yar mais soo amul diine doo mën a am yar voilà waaw loolu mooy problème bi waaw. waaw Imam Matar ak euh, Mamadou Lamine ñoom ñëpp waaw da leen ak Sénalaay depuis démb léegi seen ñu ngi a jàkkaar ñuy wax mais message yi nga xamante war a jàng àdduna parce que lu ma d'accord mooy toog naa ne leen taal réew mi moom loolu mooy d'accord man boobu parce que man d'accord moo ko ci lu jàmm jàmm gën bu ko jàmm nag ki taal réew mi sa dëkk sa dëkk nga taal fa waaye dañu suñu Dakar gii xam ne mënu taal kii ka ñu suñu dëkk yéen ko taal lu ko ñu pour nu kenn taal ka ak doom nag te nit ñi dañ am yar ñu taxaw di xas sëriñ si sa di xas ko xam moo gën sa baay gën sa maam da ngay xas ma loolu ma jaaxal koo xas fa mu jaar sa baay jaar fa sa maam jaar fa maam Rome Tuubaa jaar ñu taxaw wax si wax seen baay jaaroon jaar ñi ngi xas amal li ma laaj di xas sëriñ si baasi seen baay jaaroon wala seen maam ñu fàttali te ñoom ay ragal nan sa ñoom xam nga ne ay ragal nan dañuy tëj di wax am fi kenn gën la nga wax. man de billaahi wallaahi ku ma jàkkaarloo ngay wax si loo war wax sëriñ ci sama lu ma si fekk bëgg naa man par exemple dafa nungu lool ñun Sénégal tey jii ba nekk ci jàmm ginnaaw yàlla sëriñ ci la mais de politicien dafa politicien ñoom seen intérêt bopp rek la ñëpp laa yemale ñoom ñëpp xam lu ñu nekkal seen intérêt bopp kese personnel foo nit ñi yeewu waaw mais Sénégal nit ñi ñoo gëmati seen bopp xam li ñu jaamu léegi lii ni ñi xaalis nañu jaamu nan dem liggéey te bàyyi xaalis bi ni jaamu quoi waaw ñi pour ma laa fay kooku yow da ngaa àll ko fu man fu man da ngaa àll ko àdduna ngay ñu ngoo lu tàng nan bàyyi affaire góor jigéen ñuy def toog gi xas ku gën sa baay gën sa maam ngay xas dama fi kañ ngay gën a wax nga jël rajo wax nga xool mooy jom mooy fit waaw mais li ñuy def du fit du fulla du fayda di nga ñaan yàlla di xalifa yi wax dëgg yàlla da lay ñaanal sëriñ si yëpp kilifa diine yëpp man damay màggal damay tuwaaw damay dem jaaxle ñun da lay ñaanal yàlla si réew mi kilifa kilifa diine yi moom na na am yaa ngi dégg maam borom Tuubaa liggéey Tuubaa da ko sant dëgg gërëm Alaaji Malick Mbaye Niass ñoo ñëpp da leen sant di leen gërëm yaa ngi dégg da leen waaw kan moo ñu am leen gën a rëy ginnaaw yàlla waaw bon ñi ñaan nag dina yàlla jàppal leen ba ngeen dam am seen kale bopp waaw waaw loolu du si man xam nga làmb ji ne xam ne làmb ji politique la ñu muy doxee nii mais ñu sant yàlla ba ñu jël suñu lépp yëkkati yàlla suñu bëree baax na suñu bëree baax na démb rek promoteur yi may woo Assane Ndiaye pour sama combat ñu ngi si parce que làmb da ngay def lu nekk ci làmb ji ñu ni Sénégal daa man fàttali yow moo dafa bëri ñu naan ay champion am ñu am defet ñu am yàlla ma ko nee am bàyyi làmb ñu am defet am dix huit dix huit ans dix huit te bëri ñu naan ay champion am ay defet kese nan yee on defet ñu di defet yaa léegi da nga naan léegi la may première léegi kon première lan la léegi la moo fi làmb de ku mu am day ku mu mais ñun ñu sant yàlla ñaanal sama boy am combat rek dem kii bas baba njoon caare yi ci am combat yàlla dafa leen dab loolu la ñaan yàlla ñu ñaan si réew mi jàmm kii temps na mi nga dem tax nga dem tax dëkk maam bu fii temps réew mi dama ba sa dëkk baay ba nga sa baay am nga dem tax ñun Dakar gënu ko taalal wala lu ko may si bakkan ngay jaar ñun lu ko nangu sax ñun waaw jaajëf jaajëf kàddu mujj mooy yàlla yàlla dafa ñëpp jàmm rek jàmm daal seen lu xaj ki taal nag moom yàlla tàkk sa bi tooy yi